doon doon jigéen saf jigéen parfois mu togg lu saf kaani parfois mu togg lu saf poobar yenn saa yi mu jox la zi nga naan defar lal ba mu baax solu ni jigéen saf jigéen mu tëdd yow nga lemu nee moom mu lemu nee te bu la tegee loxo nga ni ko dindi suñu ubbee ab enquête boo moytul borom ñaari tuun rek ngay doon. Mm-hmm. wala sax boo ko dee sàkku boo demee dema dema dema dem ba di ko sàkku doo ko sàkkoo kanam mais ginnaaw nga koy sàkkoo mhm. am na ñu góor ñu bari ñoo xam ne ah am na koo xam ne nee na moom buy sàkku jabar ji ngeen mhm. ba amante moom jël baaraamam di ko def moom ci ginnaawam nga moom ku góor ki moo koy def ci ginnaaw def noonu parce que moom moom moom ku góor ki mooy jël baaraamam di ko di ko def ci ginnaaw ginnaaw moom ku góor waaw parce que moom rek foofu lañ ko tàmmee sëyee waaw kay parce que moom nee buy sëyeeg jabar ji du ci yëg dara déedéet wan jabar ji ne mu ngi am lu mu yëg parce que foofu la maanaam moom bànnee xam ci ginnaawam la nekk. nekkul ca jabar ja mantu dem nañu ba buñ dee sëy pour ñu dab bànneex mooy dañuy dañuy dañuy jël seen seen jabar di ko sàqoo di ko sàqoo ci ginnaaw pour dab ci pour dab ci pour dab ci bànneex mantu jamono jii ñuy dox wallaahi bëgg nga jigéen kuñ ko wax bul meer bu ci xuloo mm-hmm. ndax bëgg jigéen a gën ah, baax na fii ne jamono jii góor gu ñu ni maam Siiri da ngaa bëgg jigéen santal yàlla ndax boo bëggul jigéen rek sa way na waaw boo bëggul jigéen rek góor ngay bëgg te mantu bi nee na nee na day jot xaalis bu baree baree baree baree baree bëri nee na dem na sax ba wax ni ba muy jot xaalis bi maanaam dañ koo def dañ koo def dañ koo dañ koo def euh, rappel mu jot xaalis bi pour mën a takk ji pour mën a takk ji ñaareel mais boo gëstoo ba ca biir a biir biir biir bu ñu xóotoon ba xóot mooy deful benn rappel rappel ba da ko koo da ko koo layee. mais Fall da nga ma expliqué keroog takkum ñaareel bi tamit am na lu koy waral. Euh, ñu xaar leen ci 88 ah 628 89 90 ngeen bës 2 88 628 28 28 ngeen bës 2 waaye itam 33 841 20 69 ngeen bës 2 euh, muy phénomène boo xam ni it euh, dugg na suñu biir ay société nekkuñu fi nag pour di juger kenn wala it di di di xalab wala di xas non dafa nekk débat boo xam ni posé nañu ko débat bi andi ko fii may wax la ma waxoon sànq moom laay waxaat dama ne euh, soo nekkee ci mbir nekk ci bato bato bay dem di suux amoo droit entraîner kenn ci sax suux boobu mhm. yow assumer assumer woo loolu sa affaire la mais daal la nga nekk bul entraîner kenn muy subir conséquence yoo xam ni moom xamul ban koy ji kañ la woon mhm. donc loolu day dem ba day niru tooñ donc ñun foofu la ñuy waxee di leen xaar rek ci téléphone bi ci numéro yooyu ma joxe léegi ngir ngeen mën nag intervenir ngir mën a daal di bokk ci waxtaan wi ñu may annoncé léegi Fall mhm. lu metti loo xam ne am na ci géeju Cambérène bi léegi mhm. liggéey yooyu nga xam ne moo fa am ci travaux VDN bi euh, ñi nga xam ne ñooy liggéey xeer yu mag yooyu nga xam ne moom la ñuy yéegal ngir def ko ci pont bi euh, dafa daanu léegi ci benn euh, boroom scooter xaw ma borom oh. vélo mu daal di ñàkk bakkanam ci saa si xam nga xeer yooyu moom xajul sax ci oto waxuma laa ci nit donc ñu sensibiliser waat rek ndax foofu am na ñu fay taxaw di tere oto yi ñu jàll mhm. mais scooter yi ak vélo yi léeg-léeg dañuy dëgër bopp boo leen di arrêté sax dem te foo ñuy gën di moytu allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay nuyu bu baax soxna si. na ngeen def. mbaa yaa ngi am jàmm. jàmm ba egg. alhamdulilah yow rek la teewlu. waaw ah, waaw. ah yéen seen émission ah, na de. Mhm. xoj. Aïcha ñu ngi lay xaaraat nga woote ci 88 628 89 90 nga bës 2 wala 628 28 28 ñu bës 2 waaye itam 33 841 20 69 ñu bës 2 euh, ay fee la yoo xam ne yu am la yoo xam ne it daanaka euh, am na euh, maanaam boo bokkul ci yenn monde yi lu ñu wax danga naan monde virtuel la loo xam ne imaginaire moom moo fi ne mais. loo xam ne ay réalité la yu am suñu réew te kenn mëntu koo weddi ne nit ñaa ngi fi nekk borom ñaari tur ba pare am ay soxna am ay njaboot bari na mantu xanaa xamoo am na ñoo xam ne sax seen waajur yee ba takkaloo leen jabar waaw parce que société bi da lay jugé. merci soo demee yenn âge koo jabar voilà xamuñu ndax moyen am na xamuñu ne ndax euh, télé am na mm-hmm. xamuñu ne ndax préféré woo jigéen mais dañ lay force à ce nga takk force jërëjëf am na ñoo xam ne seen i waajur yee leen tooñ parce que dañuy wax ni diw war naa mën a takk jabar fat fos day takk jabar ndax moom pare na pour takk jabar mhm. ñeneen ñenn ñi ñenn ñi seen waajur yi dañ leen di xool xam ni ñi yoon wi ñu jël soo moytu yoonu yoonu borom ñaari tur la parce que dañuy gis ni lépp lu góor ñi di def say moroom di ko def yow doo ko def déedéet ñu topp la nag topp la parce que am na ñu koy judduwaale nee nañu dëgg la dañ lay topp la merci am na ñu koy wax dañ lay topp say waajur dañ lay bàyyi xel bu xale yi du football doo football bu xale yi bu xale yi bu bu xale yi dajaloo euh, di ataaye yow doo ca nekk bu ñu toogee ay góor ki jigéen yow doo ca nekk yow loo fay nekk moom mooy chaque jour toilette too ko lamsaloo ko def yenn yi say waajur la ñuy njëkk a def ni nañ ko sauver. Bakary mën na bañ am judduwaale mais environnement bi da ciy joué da ciy joué. environnement bi mën na la yar yarin boobu noonu. très bien am na ñoo xam ne dañ ko dabi ji. dañ ko am na ñoo xam ne maanaam ñoom ñoo tey dabu dabu ji góor jigéen. bu njëkkoon science dafa ne. waaw. Euh, loolu feebar la. waaw ba dafa am yu naan teg seen bopp yi di jàpp ne dañoo. feebar maanaam genre mhm. feebaru xel la. Mhm. moo tax ñuy jublu foofu science bu njëkkoon loolu la waxoon. mais avec le temps gis nañ ne nit ki mooy màgg. choisir ak yoonam dafa am ñoo ko ñoo màgg. ñenn ñi nag. société moo leen fa teg. ñenn ñi alal. ñenn ñi société moo leen fa teg. Mhm. ñi société teg fa mooy ñan ñi nga xam ne soci euh, dañoo nekk ci xale ci koñ ñu leen di sàkku. di leen tàmmal loo xam ne mbégte mag ba. moo dem ba indi ci ndaw ba mbégte mu jàpp ne mbégte bii moo normal beneen mbégte normal donc ñoom def nañ leen ko malgré ñoom ñeneen ñi dañ leen yar yar boo xam ne dangay ngay maanaam yow dan la yar ci ne yow doo góor jigéen nga mhm. da ngay togg da ngay yekk da ngay fóot da ngay paase da ngay bale da ngay dox doxu jigéen da ngay waxu jigéen da ngay ragaju mhm. su ko defee soo génnee gis ñoo xam ne ay pervers la ñu ngeen baal ma ci bi dañoo jàpp ne war nañ la mën a entraîner ci loolu ah. fekk yow ba nga koy def defoo ko pour nekk lool de da nga def parce que da jàpp ne yow lii nga lii nga war def société bi tamit ba tey foofu moo la tooñ mhm. parce moo la teg ci mbedd mi boole la ak ñoo xam ne loolu lañu ñu jël la dugal la seen biir entraîné la donc ñaari part yëpp société am na te am na ñoo xam ne ñoo dem màgg efféminé wu defuñu dara mais ñoo opté yoon bopp parce que gis nañu foofu leen gis seen bopp donc ñooñu société defu leen dara mhm. ñoom ñoo choisir seen yoonu bopp mhm. salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah bi sang bi ñu ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay bu wér ah dooma ma lay ñu ngi lay ziar bu wér a wér sang bi ñu waaw ah, di leen magal bu baax. jaajëf sang bi donc waa ñu jógee. Mhm. ah alhamdulilah alhamdulilah. wax nga dëgg waroon nañ ziar waa Kaolack aussi. Ah, waaw macha allah ci gàmmuwaat gi. Mhm. jaajëf ci fàttali bi. jaajëf dafa daamal kii bi moom mhm. ko. yàlla a. a gaawee. amiin amiin. Ah, di leen di su doy sax mu gën a woote rek mooy démb tamit wootoon na. amiin amiin ma taw rek. jërëjëf mhm. jërëjëf. ñaan mhm. borom jàmm bu baax. amiin amiin amiin. ndeysaan euh, di di di ziar aussi suñu mbokk Kaolack yi euh, ci euh, gàmmuwaat bi wax na ak waa Njaasaan mm-hmm. aussi ci gàmmuwaat bi di ci ñaan yàlla lépp loo xam ne ak ñaan la rek yàlla na ñu ko borom bi subhanahu wa taala daal di defar ñu daal di koy bokk ñun ñëpp ci kàttanu borom bi ay ca faam jërëjëf ñi leen di xaaj téléphone mandu maa ngi wax ni am na koo xam ne yaay ji da koo topp topp topp ba xam ne kii fa mu jëm baaxul mu ne naa ko takkal jabar dëgg la kooku nag du ku jigéen ki du ko saf du ko saf du mënu koo saf jigéen. dëgg la ndax dafa fekk mu jël yoonu boppam. dëgg la mantu am na koo xam ni alal la ko ci dugal. Mhm. mantu am na koo xam ni mën ko ci dugal. am na koo xam ni daa dégg dem yëri ji far am am na koo xam ni moom dañ koo daan fay di ko sëggal mujj looloo ko lool dem na dema dem ba bokk ci clan boobu dafa am benn borom ñaari tur boo xam ne ci jouru mariage am. ca parce que euh, Bakary. Mhm. baal ma faal Bakary. Mhm. dafay indi point bu am solo. la moo tax loolu yi parce que loi bi terewul loolu maanaam acte bi la tere foo ñu xamee ko noonu. Mhm. maanaam acte contre nature. dafa ne dafa ne euh, léeg-léeg nga gis nit muy am doxalin bi. di defee noonu mu leer la ni moom la te kenn du ko teg loxo. déedéet kenn du ko teg loxo mënuñu la teg loxo parce que terewul yow nga efféminé boo soloon yore jigéen di dox ci mbedd bi sax kenn du la teg mu tere mhm. mooy acte contre nature maanaam ñu fekk ñaari góor ñuy sëy wala ñaari jigéen ñuy sëy ah mhm. Mhm. jërëjëf euh, mantu euh, am na koo xam ne alal la ko ci dugal maa ngi lay nettali na am na koo xam ne ci jouru mariage am ci la feeñ ndax biñ ko takkalee jabar mu invité ay moroomam sabar gi jolli bi muy dugg di fecc la fàtte ni moom moo war a takk tey jabar. Mhm. la seen muy sànneeku waaw kay seen sàn seen xeetu sànneeku waaw kay ci la fecc fecc goo xam ne ñëpp dañoo xam ni. Mhm. ak ñu njëkk a fecc feccum jigéen yi ñu fecc. moomu fecc nit ñu commencé koo yóbbu. ci la koñ bi def attention ci feccam googu xam nga am loo xam nit da koy topp. nit di ko topp bañu topp bañu topp di xam ni boroom ñaari tur la. Hmm. mantu wallahi bëri na koo xam ne moo ngi tëdd ak jëkkëram. Hmm. tey bu ubbi woon enquête lu tax day defe ni dina dem a dem ba defe ni moom dafa am euh, xet goo xam ne moo tax jëkkër ji di ko di ko daw mm-hmm, mm-hmm. wala mu dema dem ba defe ni jëkkër ji da koo bëggatul mm-hmm. wala mu defe ni dema dem ba defe ni jëkkër ji day fooye boppam ak jigéen ci biti bu ñëwee mais fekk na ji jëkkër ji dafa amul xel mati ci jigéen mantu nee naa la ñaar ñi dafa am mooy koo xam ne dafa takk jabar ngir làkkoo jikkoom pour bañ ko ko bañ ko ko xam am koo xam ni mbokk yi dañ sonal nañ ko ci da war a takk jabar mu dem takk ji jabar. dëgg la te mantu ñoo gën a xam nag ki ñuy takk. li nga profil bi ñuy takk du ñu takk mukk mukk maam si ree du ñu takk mukk mukk mukk mukk koo xam ni mhm. ñaari yoon yu nekk mu tàccu la. xanaa xamoo ni kii deuxième femme dañ ko koo takkuloo waaye naru ko woon a takk parce que bu xamoon ni bu takkee deuxième femme ci lay jaar feeñ. weeru weeru du ko takk du ko takk de. kon kan moo ko takkuloo ak lu tax mu takk ko man daal li may wax moom mooy nañu bàyyi xel nañu euh, jaba jigéen ñi nañu bàyyi xel si seen i jëkkër surtout ñi nga xam ni dañuy tëdd ak seen jëkkër te seen jëkkër du ñu seen lu ñu def ci wàllu jigéen lu ñu nroog lu ñu saf jigéen jigéen jigéen bis boobu la ñuy saf góor seen jëkkër ak ñaareel ba mooy ñi nga xam ne seen jëkkër ñoom du ñu duñu duñu duñu la jëfandikoo mukk ci kanam waaye lu ñu wax ñu naan jëfandikoo ci ginnaaw nga defee